cher euh, maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay fay euh, di nuyu assistance bi yépp di nuyu wa yeen di len wax ni contane nan trop wax dëgg yàlla ba nu ñëwé suñu xol dafa sedd euh, ñu am ñu mantara nga len fi fekk ñu baax wax deug yalla di nuyu suñu papa ji tok di ko wax yalla na yàlla guddal fanam di nuyu champion bi reum euh deux ziga mu ngi ci yoon bi leg max di nuyu Maguette Paye di ko ziar bu baax di nuyu njabotam gépp wa di nuyu ñi fi tok ak mbokam yi tok ak euh, star yi doon waaye léegi borom Suisse ak les jeunes talents boobu di leen ñaanal tawfeex rek yàlla na yàlla defal leen jàmm. di nuyu sama mag sama xarit muy bàyyi Baye Mandione ñu bokk benn traite bokk benn bàyyi dëgg yàlla tey bu ma xamee Maguette yàlla ak moom la waaw tey defe naa ni ay Maguette pa yu bari la ma présenté du Maguette mii kase ku mu xam boole na ma ak moom mu jàppale ma defal ma teranga wax dëgg yàlla du ma ko rëcc waaye tamit parrain bi du ko rëccu nag boobu léegi ñu ngi def lu am solo di ci liggéey nekk ay jeunes yàgg ci làmb waaw di ko jox gëddëm bu baax a baax dafa naa yéen Lamine xam ngeen li may wax waaw mais kii dafa doon nit ku baax màgget nekk nit ku oyof heure bu ma ko ooyee mu jël téléphone am te fullaak fayda rek lay wax ba beneen bi mooy nitu kàddu la lu mu la wax balaa jënt beeg soow ma ko def waaw ma koy ñaanal tawfeex rek ñaanal ko yàlla yéen gii mu nekk yàlla na ko fi yàlla defal ndam defal ko jàmm waaw musal ko si pexeb noonu nag euh, liggéeyam bi promoteur immobilier dafa xaw a doy war waaw paa bi wax na ko léegi dafa bëri ay faxasal waaye boo amee dal rek jub yàlla mën na la cay suturaal te nit ku jub la te nit ku jub mooy am kàddu nit ku jub mooy wax euh, lu mu def lu mu wax rek incha allah dina ko def waaw nit ku baax la yàlla na ko yàlla taxawu jàppale ko incha allah ba le 3 juillet di wax ne drapeau bi drapeau yéen gépp la du drapeau Maguette Faye kese di ko wax ne ñu ngi nuyu au passage euh, monsieur le maire di ko ñaanal tawféex moom it le jour yi bëgg nañ ko fa gis waaw ñu ngi koy tàllal loxo aussi bés bi mu jàpp ci bu baax a baax Maguette mu ngi ciy bay waaram di ci jàpp mais monsieur le maire bëgg nañ mu dugal ci loxoom ak waa yéen yëpp ak jeunes yéen yëpp di leen wax ne kontaan nañ trop le 3 incha allah di ngeen gis lu doy waar lii ngeen gis rek waaw parce dañ doon def remise de drapeau bëgg a jàllale message bi rek. mais wax dëgg yàlla kii naroon na fi indi délégation boo xam ne dama na ko du fi xaj lépp la trois la waaw bu soobee yàlla yàlla yàlla may fekke ak tal ba bés bi rek. nag man naar naar yaa ngi ni Thier ki doon xaar moo ngi nii 2 Giga ñëw na di wax ak adversaire nag parce que yaa ngi bëri booy bu dangereux ëpp ko suut ko taxul nga daan ko maa ngi lay nuyu salaamaaleykum mbooloo bi. salaamaaleykum mbooloo bi maa ngi ñu fi teew ñëpp. salaamaaleykum mbooloo maa ngi ñuy ñu fi teew yëpp di sant samay ñaari waajur xam nga dina jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul di sant promoteur bi Sam amuñu fayam yàlla ma am fayam yàlla ko yàlla fay di sant sama gaay ma àndal ay ñoom Seex ak ñoom sàmba waaw. <laughs> dégguma li nga wax de. <laughs> bàyyi loolu bàyyi Lamine mooy loolu. <laughs> waaw xam nga du woo waa Mairie Fass naa leen làmb ji seen làmb la du woon doo baare yëpp. waaw bu baax xam naa ko de. xam naa ko daanaan la. li muy def gars yi xam rëm la de taalibe Bamba doomu mbedd bi. deux ziga doomu mbedd bi. deux ziga doomu mbedd bi yëmbal buun bi. doomu mbedd faas yëmbal buun bi. man sama bopp laa xam moom daanaan la dama koy nagul daanaan la mais bu bis baa. ku daa bëre. ku daa xeex gëna sonu a sonn. léegi waxal ak moom directement. moo ngi nii ku daaku bëri ku da xeex. deux ku daaku bëri ku daak may ndam may ñaan suñu borom dafa ma ndam bu guiss kawam. Yo ba man ma man man fuma dëkk ragal am fa man benn face la dëkk. Serigne Bamba. la ko wax sank man ma la wax ah kon <laughs> ginnaaw bu ñu santee yàlla jël ci Mouhamed sant si ñaari waajur di gërëm champion bi fi teew Mbaye Mandione ñu ngi koy nuyuwaat moom tamit di nuyu Sam di nuyu parrain di fi nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu sama gars yi ma fi àndal di leen bëggee di si nuyuwaat waa parcelle bi yëpp waaw waa Sakku xam-xam Père Birame Ndiaye di ko wax ni kombaa bii nii daf nekk combat bu ñu soxal ñu nekk ay ndaw di góorgóorlu ñun ñëpp Sam tëgg suñu combat. saa mu nekk benn promoteur boo xam ne man. Ah. xam nga beneen avance laa lekkoon. yàlla xam na ni avance bi dafa jeex moom xam na loolu mu boole maag joxaat ma beneen xaalis kon xam nga ni kii ngor lañ sekk man ak moom. Mm-hmm. bu dul dara yàlla xam na ni loolu tax fu ma woo ma wuyu ko waaw. loolu la rek. loolu la rek moo yee jox la beneen avance nag ndax adversaire de taille nga am ki nga doon am ak ñi ak kii ak ñi nga doon am du benn. yàlla nag dogal na. waxkat yi nekk si làmb ji yëpp. pour man lañ. maa leen di noppiloo. loolu moo ma tax a jug ci làmb ji. booy waxkat yëpp dama leen di rajaxe. kii nag day wax di jëf. kii amul jëf de. musul musul am jëf. maa ko ëpp combat maa ko ëpp victoire maa ko ëpp lépp ñu ma bëreel soo ko xaajee ñetti yoon bëriwul ak ñooñu xam nga boo daanee kaaw Gourdin daanu xeeru ngor. daan booy piir non. ay bërekat nga yàlla baax na yàlla nañu yàlla suturaal ba ñu yegg si. nee na lu mu wax moo dàq bëre moo dàq xeex ku dàq yooyu noonu yëpp yeggaguñ ci loolu xam nga lan laa koy wax ay ndaw lañ mën ak moom danoo war a wane suñu bopp si làmb ji ñu mën a jaay suñu bopp muy mu daan ak mu daanu loolu yëpp ñun ñoo mën a jaay suñu bopp lenn rek la nañ taxaw dëggal suñu bopp wallaahi wallaahi bu xeexee bu xeexee dina dina gëj a xeex bu bëree dina toog ay 6 mois du bëree bu bë bu ñu xeexee. dina gëj a xeex bu bëree dina toog 6 mois yoo xam ne du bëree. daa koy foq yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm moom xam na ma bu baax. Ah. Lamine kii daa baax di wax rek Lamine barke Serigne sëriñ ki lu wax amul kii bu taxee war na Serigne Bamba laa ma judd yàgg man bëri naa bi ma sama huitième combat musuma bëri une minute carrière bu bawal ba ma ko ja ba mu ko jëlee ñëpp lañ ne moo ma mun 30 laa ko daan saa ma ko tëggoon. kii man dëgg la moom moo ma su làmb moom ma duggee si làmb yàggul maa daan dë maa daan lasandeer maa daan aligoto maa maa daan nëfi maa daan sidima yaa ngi dégg kii dafa baax war na Sëriñ Bamba bu taxawee làmb ji du yàgg moom nee na xa moom nee na ñun ay ndaw lañ. yéen ñëpp lay noppiloo moom moom moom na ab mbayaan la day wax rek moom day wër di wax rek moom day wër takk rajo di wax rek moom li. kon ñaari waxkat la Samb. non non moom mooy waxkat man damay jëf. barki Serigne Bamba. Ah. bu taxé lam du yag man kuma xam man kuma xamé xamné sama lam musul yag, mu musuma beuri combat une minute. mais jappam la ragal jappam japp jappam kom arbitre bi mu japp mu japp ma japp lu graw ngay gis Lamine ba wona Serigne Bamba Lamine yow xanaa xamoo yow rëm ngay waxal de dom mbedd mi. dom mbedd fas dom mbedd fas barki Serigne Bamba ki amul moko delo ginaaw ki la amul moko delo ginaaw kii moom mooy naa xam ma xam ma comme nag kii moo koy xam wàllu làmb laa nga xamee mais bu dee affaire de sañ-sañ affaire de leneen fii la buujoo. maa ko gën a teng man fu ma dëkk dégg nga ragal am fa war na Serigne Bamba. li woo ñëpp na sama open de presse le 29 la. mais yéen ñaar ñëpp ay borom mbooloo ngeen kan mooy supporter. waaw nañ baa nañ baawa bis ba rek man moom en tout promoteur dañ maa respecté saa ma ngi nii. tontu man parcelle laa jógee ak li ko wër. te yàlla dañuy gën di neex la dañoo nekk si benn affaire boo xam ne. yàlla baax na yàlla nañ yàlla suturaal rek. ah daa mel làmbataay ngeen yor. non yoruñu làmbataay gi sax. liggéey liggéey rek yàlla xam na loolu liggéey rek moo ñu war moo tax si la ñuy nekk waaw looy wax looy wax parrain bi ñu tuddee seen drapeau bi Maguette Faye non parrain bi dañ koy ñaanal rek yàlla suturaal ko jàmmal ko jours yi mu ñëw yàlla dogal xam nañ ni man maay jël drapeau bi loolu la yàlla dogal. ah noo xamee yow noo xamee. man maay daan. nooy daane nag bàyyi ma ñoon mu ñëw présenté ma ko. ñu ñëw waaw bëgg nañ nag nga jàpp si combat yi xam nga combat bi dafa yàgg man moom ba ma jëlee avance kenn xamul kañ la. bëgg nañ nga jàpp si bu baax a baax a baax kii moom barki dem la jël avance bi mais man jël naa avance bi ay dix huit mois. non na leen na leen jëndal bolok yéen ñaar ñëpp. non man man lay jëndal ñaar jëndal kii benn bu ma jëndalee ñett jëndal kii ñaar kii man maa ko ëppale ba jour combat ba loolu la yàlla di dogal jour combat ba noonu laa koy daane maa koy ëppale di ko ëppale loolu la yàlla dogal. kon baax na deux say mbokk. maa ngi woo parcelle ak li ko wër Cambérène 2 Cambérène 1 HLM Grand Médine Grand Médine Soprim Domaine ak li ko wër Grand Yoff mafia bi dëgër bi ñëpp sama sarax yi nag maa ngi leen di wax ni ñu waajal open press bi le 29 la incha allah bu neexee suñu borom lu bees tàq la ñuy daaj si. incha allah war sa mbokk maa ngi jege si. Lamine kii dafa ma umpale ko waa war na Serigne Bamba mais bu ma ko daanee ba toog si plateau bi lay comprendre man maay kan. di sant bu borom drapeau bi kii borom baax la mais tamit ñu ngay koy ñaanal. ñun bëgg na mu jëno ñay ay mëna jappalé promoteur bi Sam borom baax la war Serigne Bamba ma sama lamb yëpp moko ko tëgg moo ma tamit ci lamb xam wax sa mbaax waaye du wañ dara sa mbaax ñun dañu bëgg nga jappalé promoteur bi Sam nga jappalé ko tàccu leen loolu loolu jar na tàccu xam nga mais tam ñu dem bëgg na nga gënë ñay ay pour suñu supporter moy loolu xam nga du wo wa mbéde Fass yëmbal bun bi Kër Massar wa Malika xam nga wa tawakat set sareede ah ñoom Elas Thiaw sa xir ma fiyaa bi Elas ko dirigé ah waa Tosa Mbaari xam nga wa yëmbal di ñaanal mbër ya mbër du sant suñu waa équipe ah. ku su mel ne Baye Ndiaga am combat diko ñaanal yalla dafa la ko ndam mom teel a ëppante xam nga du wo yembul bun bek di sant sama ñom cheikh xam nga di sant ndey tuuti seri Tafa yaay Amina borom ñaari cheikh di sant ndey tuuti sama jigen bax la ak sama ak sama benen jigen Kumba Dieng xam nga di sant yëmbal bun euh ministre Amadou khot Amadou khot dafa def cheikh bu nice moy frontière depuis 2015 depuis 2015 da feebaroon mais xam nga rek bobu ba ñi wër ñi wër Amadou Xon ñëw ginnaaw yàlla na Moussa Guissé moom moo tax lépp ñu am ko instant frontière jël nañ ko en charge. muy daan man maa. Sam ñu ngi ziar. damay wax ne nit ku nekk li mu nàmp bokk ci dompate mu yëg ko. li yàlla dogal nit ku ràññee te am bët yu silma xawul moo koy gis mais lii la yàlla dogal. góor gu baax moo ko jur moom mii taxaw mënaloon nu taxañu nu boppam mu nekkoon imaamu ratib ci dëkk bi mën naa giñ ci yonante bi lu ma mas a ñaan yàlla nangu Baye danga am loo dugal léegi boo màgget jaraaf la waxu dëgg la ndaxte ku la bëgg lel taxawul paaka di xoos doo ko mas a am lel dañ koy judduwaale waaye moom mii bi mu juddoo billaahi wal kitaabi ci la fekk ay waajuram am ndombal tànk mu ànd ak ñoom jalaaw nag la dëkk gi fi la màgge fi la yaroo laaj li nga wax dëgg la ànd bu rafetee nettali da ciy yomb te loolu nga wax ci moom moo dox ci seen diggante kon yàlla na yàlla guddal may wax na rek buñ la tuddee drapeau nga andi ci sa ay biri bok ñu tok man may sa géelu juddu kumu neex man la kumu mu naxari man la sa yaay la won ak suma yaay sa bay ak suma bay ta dara dañul nga xam ragne téye lolu dika doxal ta yàquloo ki mbar legi nga may ko fukki junni boko ka mayul won ma mere la ndaxte nun géwél dano xam lu ba ta dika dox waye ku fi jakku ne no la jagal noy and ak yow xañ sunu bopp daraja jox la ko ba mu jeex waye man na giñ ci yonante bi ne sam bo jappé teew bay ki nga japp ni dara du recc ci ndax ndaxte yalla mo len bolé waye njoon ñu ngi lay gërëm di am contenté ci yow ba nga ñëwé ñangal kërëm nga daan fanan ba ngay tak simba kërëm nga daan fanan nga am ci ragné sen digënté dara masul ñaaw waye ñaari mbeur yi taxaw suñu drapeau bu ngeen nu ko baaluma len ko xamalu tax dama bëgg ngeen deggal seen bop ta ko ci daan dan lay may terrain dego ma de ku ci daan yeen ñaar ñewal fi ñu ne la parcelle baa ngi nii du ku len dimbali rek ngeen bëgg dimbali len seen bop ngeen deggal seen bop bañ ruslo ki len teggal combat bi muy taxaw béré bu neex nak dano dano mëna béré nun xam kuy béree nu bëgg ngeen dëggal seen bopp ku si dem ardo ku si dem ardo doo mbër wala ku reculer doo mbër dëggal leen seeni bopp drapeau bi dafa war a séréréri neex lool péjéeme yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla jàppale la yàlla na yàlla taxawu la jalaaw ñi kay doxal sa jëmm si la bokk am nga ràññee mën nga ak mag ñi ñu ngi lay wóolu nag dénk la te kuñ la wóolu di la dénk ka nga wóolu ngay dénk wa salaam jërëjëf waay. yaa dama sa kër baay sa kër baay. sa kanam la mën ay doon ne waa jaaje waaw waaw yaa dama sa kër baay. sa kanam la mën ay doon ne waa jaaje. bu ñu jégalu nag ñu ne ko doon ci lu garaaw bu baax dina taxaw fu ne. ñu seen yëpp am nañu loolu. macha allah ci nga li nga xam ne lii yaa na doon taw. jërëjëf waay jërëjëf. jërëjëf rahmatullah gars yi ñoo ngi ñëpp di rafetlu ñi bàyyi seen ité yëpp ñëw teew fi pour rafetal li xamante ni moom leen ñu tubbee muy làmb boo xam ne ni ñu ngi koy jublu la trois di ñaan yàlla ku ci nekk yàlla may la nga ànda sa sago may la ak weer di sant yàlla di sant ki xamante ne mooy kilifa gi fi teew mooy Baye Kuluka ñoom Grand Matar asama astaf bi yëpp di gërëm Sambey li nga def nii dafa feddale ne nun suñu biir senegal nun jën yi ñoo mën a defante amante ay link jàppalante ku si nekk loo mën a teg nga xalaat na sa moroom mu ngi si nga am noo fa taxawee boo tuddee lii nag drampo bi Maguette Faye waaye yéen ñëpp ñoo ko moom d' abord maa ngi nuyu yaali mbër yi fi teew di leen xamal ne man maa leen dàq bëre foofu wala yaa jéem lu leer laa leen wax kon bu ne sama drapeau la ah dama bëgg bu jour ba bu ñu ñëwee bàyyi suñu itte yëpp teew d' abord na gars yi kontaan kilifa gi dégg na li mu wax sànq yi ole que ku daan ñu may la terrain mais dañu leen di jox ku si nekk terrain yàlla moo dogal loolu donc nuy sant ñëpp sama wax nak du gudu di ñaan yalla bu bes ba bu ken rete jalaaw gep drapeau bi sen drapeau la di gërëm monsieur le maire tonton Gorgui sis di gërëm Baye ñoon di ñaan yalla bu bes ba dal lepp lu ñuy wax bu di dinañ jakkalo senegal gep wax ko ma ngi jégalu nak mom di sori xol bi dafa fess parce que lula la man la tanun ay dom adama yu xébu lañ àddina moom li ci am solo mooy lépp looy def rek moom laay mujjal na dëggu te ndaw lañ yu xeebu nag mais lépp lu ñuy teg suñuy loxo suñuy barke suñuy waajur ñun am nañ ci ndam am nañ ci yaakaar aussi di gërëm ñëpp kontaan naa trop macha allah. macha allah <coughs> mu gaaw mu gaaw. waaw xam nga ñu tamit amuñu safay quoi ñun boo gisee tamit ñu dugg si làmb ñun ay tëyër lañ man tëyër laa mais man lu ma mun munti am làmb moo ma ko gënal saam dañ koy delloowaat di ko sant ndax wax dëgg yàlla ba mu taxee làmb wax na ma ko nee na ma rëm làmb ma la tëggal xamoo ko yaag sa adversaire yëpp xam nga ku ma tuddee drapeau bi xëy na xamagoo leen ko mais boo leen bëree pare ngeen comprendre di di di la sant ndax yàlla bàyyi la fi xam nga geste bi nga def lu naaj la quoi mooy loolu. waaw da ngay si. <laughs> damay ñëw tuxu si yéen. <laughs> yow loo ci yokk. man bàyyi ma ñëw moom mooy dëggal. aywa noonu la demee dafa mel ni jeex na la ceer kaay. yaay mërgale yaay mërgale yaay sugni fooy fanaan ñaari mbëri mu ne roofoo ku nekk ay tëdd jaaxaat naay ku nekk naan sa mbër muy moo daan kii naan sama daan noon yi nan ko kii moo daan xanaa xamoo ki ngeen waxtaan bi da ngay man mii ba ma juddoo ba tey damay luyee ma kër ma tëral sama yaay ah laaw la ci laaw la ma xel na ah, ko ah yaa ma ku ndaw du tere ne ko Mariama Njaay salaam Njaay